sura suratul maarij saaru iskale makke ci kale makala arbaon ñenant la wa arbaon ñenant ko yaa ci kaade bismillah fa sama wax sama ci tuddu bur rahman kala rey ni kala teewal ni daal ala kala rek nabri ibn haris xam nga ñaanoon nag ñaan te saaru lan faar moo doon wax allahumma in kana haza wala qamina nika fa amsi alaina hijaratan min as-samaa'i yàlla su fekkee alquran bi muhammad di jàng dëgg la yàlla nga taw ci ñu dëgg yéen a ñàkk xel kooku dafa waroon a wax ne fekk alquran bi dëgg la yàlla ni ma ñu gëm loolu war na ñaan moom mën a dem dëgg la yàlla ñu yàlla xalak buur ne saara ñaan na saayun aji ñaan yaa saa bin ci dugal waaxeen mu di aji daanu kafir na jëlawet yi am na kat ku ñaan mbugal muy wàcc ci xéefar yi day saloo den ñaan ko daal mën aji jañ dina laaj ko ci yàlla def te bugalam yàlla moomu du duggee amul dara lu ko mën a jañ ko doon laaj nag mooy nafsi ibn Haaris ibn Abdul Muttalib sin maari dina laaj ko ci yàlla sin maari ñu kadi borom iskale iskale yi jëm asamaan malaaka yi ci yéege waaw ñu dina xeeg al malaa'ikatu malaaka ya waroo ak Jibril lay jëm ci mbiram lay jëm ci asamaan rek ñoom ci iskale yi lañu jaar ba dem asamaan fi yow min ci bés kaana boobu nekk na miqdaaroo cambam xam si na juróom fukk alfa sana di ci gën a gaar ci iskale yooyu la malaaka yi yeeg ci la ñuy wàcc itam yi ñëw ci bés bi nga xam ne judde ñaawayam juróom fukki junne ci at la juróom fukki junne ci at benn bëccëg kaawtee fi bii desaka gudd juróom fukki junne ci at ñu ne yonent bii desaka gudd mu ne danañ ko gàttal ci jullit dem toll nii dem lim daa julli julli farat waaye bés la boo xam ne daal ñu dowut ak bés yi ñu xam juróom fukki junne ci at la tolloot ñu di ca rek leen di dem mboolem di lefi seen affaire du sotti te bëccëg ba jeexut bëccëg ba du jeex itam te seen affaire yëpp sottiwut guddi gi nag ñun ñu ngi deewuñ ca dana am ñaar ci rek ñu joxe ndigal ci ñoom nañ leen yóbbu aljana ci ñu ci benn laaj wala ñu ko yàlla boole dana am ñaar ci gannaaw laaj bu tuuti ñu digal leen ñu dem aljana am ñaar ci ñu joxe ndigal ñu dem safara te duñ leen laaj am ñoo xam ne gannaaw laaj bu tuuti ñu dem safara am ñoo xam ne lu ko ñu saa am lu ko ñu def lu ko ñu at yaat yaat dina lu ko ñu teer téeméer at dina waaye daal balaa bis baa jeex guddaa ak juróom fukki junne ci xel lay tolloo bés boobu jeexee na mbindeef yëpp fottal nañ ci bés ba bés bii itam fottal na ci mbindeef yi benn góor la bootam nañ ko te coono bi bari na lool war ngaa noppalu nag ñu ne leen naka la dund ak dina day ñu ne dégg nañ ne juróom-ñaari junne ci xel ñu ne pencam yàlla bés ba noonu day ñu ne ko juróom fukki junne ci yaar ñu ne dundalaat dina yëpp moo ko dundoon te nokk ma moo jenn jamono du day bëccëg waaye du day bés boobu day bés juróom fukki junne ci yaar ndax laa xajul si rek wax jëri mu ñal babran ñu jëm yoon ngir ay waxe loolu dëkk xarale ñu ne moom naka ñoom yéefar yi yaraw na woo danañu danañu gëm pencam yàlla waaye ne dañ dumu aji tabbi ñoom dañoo jàpp ne pencam yàlla du ñëw wana roo waaye dama xam ko ni yàlla xarit ba ñu aji tabbi ci lu am sikk rek man yàlla ma xam naa ne pencam yàlla dina ñëw faw loolu am sikk kañ yow ma tottooru gis ba la nekk sama asamaan ba mu mujj na kan jot nga soroon saytu de gis ba nga xam ne asamaan dafay yàqu nekk ay sagar sagar mel ni biir buñ taal ba ndoxoor ba def fa wala xaalis buñ taal waaw ba nga ndoxoor ba def fa wa takunu ta nekk ak jibaaru doj yi kala xeen yi nekkam suuf ñu fañ a de doj yi mel ni suuf moo xam ne dañ koo fët bam nooy ñëpp wala yasalu laaj ci am yi num jege ñaale am yi num jege ñaale te kenn du laaj sa mbokk keroog pencam yàlla fii ci àdduna lëf lu xew ku ne ngay laaj ay mbokkam pencam yàlla kenn du laaj sa mbokk lu ñu gën a bañ ci àdduna gis koo xamoon ndax koo xamoon mën naa am yaa ngi ko amel xaq kenn du laaj sa morom xanaa dañ leen di gis léegi ba saroon danañu gis leen de yaa ngi jàngal say jege ñaare te bëggoo leen a gis te doo leen laajte rek ku nekk nga naa sama bopp sama bopp yow a dana mébét am ñu jiriñu béefar day westat yi wante dana mu jotu ñu na saa bi yow ngi ci ci ndigalam desab keroog di banni ci doomi góoram ñooñu jiwu ko fi mu musal ko de. keroog bàyyi dana ne yàlla fabal sama doom yëpp lakk leen te man tan man nga musal ma de ba fay ba fii ak jabaram yéefar dana wax ne ay yàlla fabal sama jabar yëpp yóbbu safara te man nga musal ma de waa fi yéeg mbokkam yéefar dana wax ne sama mbokk yaa ngoog fabal ñoom yëpp yóbbu safara te man nga musal ma de wa fasilati ak jiidam la ci daaga tuuti danañu topp ko dana wax ne sama gars yi yëpp fabal yóbbu safara te man nga musal ma de wa man si la leen ñu nekk ci suñu jameen bi ñu boole jëlal ñun suuf yëpp joxe ma leen te man nga musal ma yow sama borom su ma yéen ji topp mu musal ko de buur nekk kàllaa yéen dina danga lëkkati ko de keroog li yéefar bi mébét du am de kenn du jot kenn kenn du jot sa bopp kenn ku nekk sa bopp sa bopp inna naka moom safara lasaa lasaa safaraw jaanama nasaahatin ñoreha kon la mu di sawee ci deru bopp safaraw yi ñuy wax lasaa nag moom xam nga luy dikkee moom moom bopp bi rek lay dëgg ni lakk na ba deru bopp yi ba ñori ko koo gis ay bëñu ma nga ne fànn suñu ma lakk na ba suñu suuf ma lakk na ba wàcc ci jumbox ba suñu kaw ma lakk ba dem daanu ji jog jogere ja de bëñu ne fànn sarno dana mu woo moom la saa man adbara te dëdd na mu wata wala dan dëdd walis gëm de te képp ku mas bi yéefar jox yonent bi gannaaw wala alquran la saa daf lay woo ci sa tur de naa la ñëwal ci man ñëwal yow man la man lañ la boole wa jamaa ku boole na mu xalal fa aw xaatam takk ko képp ku boole sa xaalis ba mu bëri nga def ko ci seen invité takk ba mu dëgër bañ caa génne àq yàlla kooku loolu la saa di xoore dina leen saa na naka nit ci di yéefar ku ne xam bindeef na ko alors am mu di ci saakoon de doomu aadama yàlla daf ko bind mu ci ci solo wërte yaa ma solo lam jot na ko solo ak ñàkk jasoo xam mu nekk di ci saakoon way yaa ma solo lam jot na ko al xayru naataanga man noonu mu nekk di sera ko naat yàlla di leen mu salina ndare way gëm ne yàlla de loolu nag ci koy ñun ñëpp lañ ñu may ci di nga xam ne dañoo gëm yàlla le si na ñooñu ñoom daay mën a way fax lañu antawaat yi ci julli seen wala si naa ñaaña fi am waal yi ma aji nekk la ci jubteen xaqun xaq maaloo mu njëriñ ñu xam li saa ili ñeel aji laaj wala maaroo mi koñ xañ wala si naan ñaaña li sa dëkkoona danañu dëggal bi yoomi jiñ di def tey wala si naan ñaaña moom ñoom mustaqoona way ragal lañu min azabi rabbihim ci mbugalam borom seen min azabi rabbihim naka mbugalam borom seen xayru maa moom di mënuñ xoolu de wala si naan ñaaña moom ñoom aasutana yoot lañu di soroo jim ci tey seen di laalaa saa jim dara ci jabar seen xaw maama la tabi tele mun na ko imaam moom dajee seen te ñoom naka ñoom xayru maloomi na duñu yedd amoon i saxaatu fàttali mu war a asaani kër gi mu loolee. walaay ka ñu xale gaaw ñoom alhamdulilah doon ñoom ñooy jéggi xaraam jëm ci xaraam de. wala fi naan ñaa ñoom ñoom. waaw man way sàmm lañu. li amaanaat yi ci ma dore seen. waxaat yi ma ko dore seen de. wala fi naan ñaa ñoom. ah imuna way taxaw lañu. di saada ci di seede seen. wala fi naan ñaa ñoom. yu xaasu sama dañu war a xalaat salaat yi ci seen. ci waxtoom de. walaay ka ñu xale gaaw ñi doon tudd. janaa si way nekk lañ ci tool way nekk lañ ci àll bi kër moom ñu karal la ci janaa si ci àjjana rek ñooñu yàlla daf leen yóbbu àjjana te leen dara yàlla ñu yàlla bool. maa ngi leen di nekk ba roog ba naka moo tëjee kooku wàcc na ci xéefar yi ba nga xamee ne dañ doon def ay kii kii bu nekk nga gis ab kuréel daje fa di jëw yeneen bi rek ak juróom yi. góor ne ba maa ngi leen di ne ana lu ñu naan ñaañu ko fa la wet nañu. moo ci yéen a mbir mu ngi woowee tàll bi def ci yéen ci bala ko jëm ci wàll sax ani yan yi nii ci wàllu ndeyjoor xëcc na ay mbooloo waa nit ci Mali aji nekk la ci wàllu càmmoñ xëcc na ay mbooloo ñu nga def ay jéew jéew ñu ngi ci jullit ñi tey naan ñii ñooy dem aljanna waaw ñii day kenn mu leen a dugal aljanna dañuy dugg ñu daal bu ñu duggee ñu dugg buur na ayat maam dana yaakaar te lu mu réer yëpp nit ñoom ci ñoom ñëpp xalaat bu xarfeef sa jana may ñu aljanna xéwalam yéen a ko nekk ku nekk ci yéen day dem aljanna tàlla jëm ci leen ca def dinaa naka nun xalaq naahum bind nañ leen ñoom doomu aadama dama mi ma yàlla moo na ci lañ xam de yéen du demal jànn de ndax yéen doomu aadama réeréewu leen seen cosaan yéen a ko gën a xam ndax ñu ko déggati tey ana fu ngeen bàyyi ko ci toqante man yi rek ci kooku sobe la dara mu ko laabal lu muy jëm yàlla topp yàlla ku ci jëmul yàlla topp yàlla nag sobe la te bon te yow du daal jànn te yàlla la ku sobe ku sobe du fa dem yéen sobe ngeen moo tax ngeen ko dugg de voilà si mu gën a ma génn di rafetlu masarati ci borom tent yi wal maxaarib yi borom kaw yi dinaa nekk noonu ba xaajuloo na way atam lañu ala anu bëgg la suñu wasa xaaral ñu ñu dem ñu. bu maanaam déet ñun li ma bokk yeneen yi way la rek defarum bayi leen dafa doon ñu fuuf ci seen baat yi way la bokk ataa yu laa ko bañ bañ yow moom des yéen a si baaba yow doon na def na tëkkoo leen ko yow ma yàqu doon na def na dina ñu génn na la biraat si si ba meen siraan bi ñu doon yow kaanoon daanaka ñoom yoo fi bonoon danañu gaaw daana seen jëm ci raaya de xaa seen kan ñu aji torox ak karoon ay def seen toroxum gën a muur leen ci la suñu toroxe gaañu ko yow mu boobu la def ala fi mooy def ba nga xam ne daanu nekkoon nañu yow doon na def na tëkkoo leen ko def